ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakar net daara rëcc ci réew jàpp benn dañ ci jàpp benn étudiant voilà yow nga responsable de la police. Thank you. Mais on, on, on, on veut uniquement ce qui se passe à Bambay puisse se régler au moins dans le temps possible. C'est ça. Et c'est ça, ça, qui nous préoccupe, qui nous au moins se réunir ici pour vraiment discuter ça. C'est une commission. Non, non, attends, attends, attends, attends. Ils ne sont pas Dakar, comme nous communiquons avec des mots, te dañuy wane suñu mécontentement ci taxawaaw taxaw bu suñu autorité taxaw par rapport aux orphelins parce qu'on ne peut pas dire euh, à l'université Anta Diop euh, de Dakar 1 pour te loolu c'est anormal aussi parce que mënuñu concevoir tamit euh, nit ki nga xam ne dafa ñàkk papam ñàkk yaayam ñu jóge ci beneen dëkk ñëw ba fii pour jàng tey amul moyens yi pour jàng loolu c'est anormal aussi bon après tout ça on a te lu ñu gën a ci loolu mooy que réponse bu ñu directeur des bourses jox ne carrément orphelin bu la neexee nañu grève de